au conseil municipal de Sangalkam budget bi un milliard huit cent quatre-vingts millions la donc bu ñu yokkul agent yi nga xam xamante ni ñoom ñooy liggéey ci 44 localités yi nekk ci mairie mais buñ bu ñu wax waxu wàññi ko parce que commune bi am na recette yi commune bi am na liggéey bi aussi man li ma gën a jaaxal mooy le maire provisoirement installé mais li mu njëkk a def mooy dem jëndi oto buy def 30 millions mel ni kuy ñaawal population bi nit ñi dund nit ñi nekk ci ay jafe-jafe jafe-jafe bu cher jafe-jafe aussi ci li nga xamante ni moom mooy les besoins mooy éducation santé ak yeneen ak ak yeneen. beneen bi mooy ne 200 parcelles yi ñoom moo tax parce que 200 parcelles yi dafa am historique parce que il s'agit d'un lotissement administratif dana may gën jaay loolu de joxul bandul fait depuis 2009 par l'ancien communauté de de Sangalkam, dirigée par le ministre Omar Gueye. bi ñu defee lotissement bi avant ñoom ñuy pare parce que bi ñu defee lotissement bi jox nañ ñi nga xamante ni ñooy propriétaires seen quota jox le géomètre seen quota jox les terrasiers seen quota mais en en au maanaam temps bi le temps ñuy def ñu mettre en place une commission.

plainte contre X pour que képp koo xamante ni laal na ci parcelles yooyu mais di justice def yoonam parcelles yooyu parce que ñi nous ñi koy yelloo ñu ngi nii toog foofu laay yem ak ñoom di leen xaaraat parce que Nous juróom xamuñu dara ñu demandons leur démission ou bien tout simplement la mise en place d'une délégation spéciale à Sangalkam.